gis na yëf yi euh, vidéo euh, li nga xam moo di surveillance yi moo wane xale bi mu topp ci ginnaaw tànt ji tànt ji euh, fopp doomam ñu ànd ñoom ñaar donc pour bañ a gën a guddal ngir ñi nekk ci plateau bi gën a comprendre muy Jumboori ak euh, bàjjan damay woo Abdou mi nga xam ne moom la ñuy woowee Abdou Khoudia Ndiaye ah xàmme ngeen ko fii ci Feeling Dakar. Mhm. muy def liggéey bu am solo à travers ci yu mel nii ak euh, reportage yi nga xam ne mu ngi koy faral def ci terrain bi moom jàmbaar la moom Abdou dem na ba Sébikotane ànd ak suñu équipe xool yëf yi nu mu fa demee yaakaar naa sax ku dugg Feeling Dakar di nga gis reportage bi ci def foofu ci Sébikotane donc mu am ay leeral yu ñu ci jox laata ñuy jàll. sëñ Abdou Khoudia Ndiaye Abdou Khoudia Ndiaye. waaw ziar naa leen sëñ ngi dolli ziar naka njaboot gi. ça va alhamdulilah. Barkalla euh, yow yaa ñu demaloon foofu ci Sébikotane pour gëstul ñu li nga xam ne moom moo fa xew. xale buy am fukki at xaw ma juróomi at lañu ko rey dugal ko ci tabax bu àggul te ki jëf-jëf ji ni mel ab jege ñaalem la yéen dem ngeen ba foofu lan ngeen ñu ci mën a wax ci lu leer. <laughs> Ah, ginnaaw bi ñu rafetloo plateau bi nga xamante ni yéen a koy def muy topp kaa. Mm. di leen wax que ni àdduna yëpp moom lay suivre. Mm. Ah, lii dama ci sawar a waxtaan parce que tey dem nañ fa. Mm-hmm. ànd fa ak mm-hmm. mais buñ jotee ci ay explication mm-hmm. boo bëggee dégg daal al tiis na quoi te aussi daw na yaram. Mhm. parce que ñoom nee nañ xale bi mar bi 17 heures. Mhm. dañoo jékki-jékki gisatuñ ko. Mhm. Hmm. après ba 19 heures. waaw. ci lañ ne non xale bi daal fan la war a nekk parce que boobu léegi ñu ngi génn kër gi te xamuñu fu ñu nekk. d'accord. léegi ñoom ñu koy wër. ci ki nga xamante ni mooy rakku papa ji moom mooy gën a expliqué. Mm-hmm. nee bu ñu toogee mercredi. waaw. ci leen leen woo ne am na ku ñu rey ci benn appartement ci benn bâtiment boobu. d'accord. léegi ñoom bu ni. Mm-hmm. xale bi la. Mm-hmm. ñoom nee dafa nekk ci dafa xaw a jege mbokk bi dafa xaw a sensible ba booy xool sax nanguwuñ cee détail lu bari. mais lu ñu xaw a jot ci ay information yi nga xamante ni leer na te aussi wér na mhm. mooy que ni tantam waaw moom moo boot euh, doomam di di dox gis xale bi waaw nee mu jox ko xaalis xale bi mhm. léegi mu joxee xaalis xale bi xale bi topp ko mhm. léegi nag bi ñu demee ba ci euh, bâtiment boobu noonu bu mu defee jëf ñaaw ji. waaw noonu la demee maanaam mu rey ko mu nekk li nga xamante ni dafa ñaaw. d'accord. Mm-hmm. bu leen laajee aussi tamit. waaw euh, ne leen. Mm-hmm. loolu lan la mën a demee parce que tantam mm-hmm. aussi tamit euh, rey ki nga xamante ni moom mooy doomu jaam mais dañuy ji ak yaay yi. dañ daan xawaloo am ay ay coow. d'accord. yaakaar naa looloo andi li nga xamante moom moo xew foofu te si waxtaan. wujj yaayam maanaam wujj yaayam la daal dañ daan wujje ñoom ñaar um, daan am ay problème waral mu rey doom bi nii. Mm-hmm. ñoom ñoom loolu la ñu expliqué. mais daal affaire de famille la moo tax ñoom bugguñu ci xuus bu baax a baax a baax. bugguñu ci sax mm-hmm. boo ci kiiwee naa ni loolu moom mënu ma jaay parce que la. Mm-hmm. d' d'accord mais du tee itam gendarmerie bu euh, Sébikotane bi ubbi na ci enquête ndax loolu itam am ngeen ci dara. Hmm? allo oui. ma ne nee nañ gendarmerie bu euh, Sébikotane bi ubbi na ci enquête ndax ndaw soosu la jàpp yóbbu ko wala jàppaguñ ko. jàpp nañ ko waaw ñoom nee nañ jàpp nañ ko mais buñ ko buñ ko jàppee. waaw. buñ commencé def seen liggéey moom ndaw si aw yéen na moom. d'accord na quoi. d'accord moom moom moo def def jooju. d'accord. loolu xëy na enquête bi bu demee ba ci biir ñun itam duñu tayal danañ fa delluwaat. Mhm. gëstuwaat xamaat bu baax a mhm. baax ana lan moo waral jëf ji mel. ñu ñëwoon kenn daal ñu lay jaajëfal bu baax Abdou Khoudia mhm. ñu leen di jaajëfal baax a baax yéen waa liggéey bi rafet na macha allah. jërëjëf kooku mooy Abdou Khoudia moom moo ñu demaloon foofu moom ak suñu euh, beneen reporter bi ñu naan Ali ñoo fa nekkoon jimboor yi dégg nga li li mu ci xale bi. Mm-hmm. dafa mel ni ay problème wujje euh, moo tax yëf fi xew ay xale koo xam ne innocent la xamul dara yëgut li xew ñu jël ba kanam. Mm-hmm. xam nga problème mu wujje. waaw boobu léegi mi ngi am parce que am na koo xam ni. doomu wujjam la jëloon wujju neew fa mm-hmm. mu takk ko ba mu dëgër vidéo ko di ko won yaay ji xam nga yàggul dara mm-hmm. xam nga yooyu yëpp lan moo koy def mm-hmm. Aliou waaw xam nga tamit yëf yi day bëgg a bëri parce que am na fi keneen ak keneen ñeneen ak ñeneen ñuñ ko def nekkul kii sébi xutaan kese lañ ko def Aliou est góor ñi bu ñuy dajalee ñaari jigéen Mm-hmm. wala ngay indi jigéen te jigéen bi fi nekkoon nekkatu fi. waaw ah. est li mu ko war a wax pour mu ñëw ñu ngi wax loolu wala. waaw tam lu mat a laaj. Hmm? man loolu tam lu mat parce que tamit xam nit ki su fekkente ne danga koo takk indi ko mu fekk fi jigéen <coughs> nga wax ko li nga ko war a wax defe naa du ñu yegg fii. Mm-hmm. parce que jigéen euh, dañ ne loo gis rek mu feeñ ci biir sëy. Mhm. wala mu ñëw feeñ si kër. si mhm. commencement bi doon na jebbi jebbi ñu ba ko ci. nuyoo woon na dañ koo fay. waaw waaw waaw. Mhm. c'est-à-dire que boo indee jigéen. mu fekk si jigéen respecté wu ko wujje yooyu nga indi ko sa kër. sa kër di bëri coow. am na ñoo xam ne nii sax seen coow seen kër day bëri coow ba waa koñ bi di leen yërëm naan ko moom kay jabaram yi moom kay nangam nangam fekk moom moo tabaxee kër gi noonu. d'accord tey. mag ñi dañ daan dugal ñeenti jabar ci biir kër boo duggee ci biir kër gi doo xam kan ak kan la la kan jur mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. waaw man nii sama tante moo ma yar sama wujju yaay yaa ngi dégg si moom laa daan nekk boot ak lépp mu koy def soo ñëwee suñu kër doo xàmmee kii moo jur kii wala kii moo jur kii mais booba dafa amoon ay góor yoo xam ne dañ daan taxaw deg wane wane wane taxawaayu góor yàlla parce que jigéen bu xam ne xanaa am lu jigéen xam nga lan moo tax ñu koy muur dugalal la ko si néeg mm-hmm. yow nga ñëw muri ko pour loo ci fekk nga muñ ko ba pare dañ la wan ne matul moo tax ñu may la ko mais yow boo amul doole boo amul xam-xam fulaak fayda buy yor jigéen bul dajale ay jigéen waaye di lor njaboot gi bëri na ñoo xam ne seen parent si boppam moo moo xoola mën nañoo wax ni moo moo moom moo rey xale bi mm-hmm. Ali ñi ngay indi ak ki ki fi fekk il faut nga teg leen wax leen lu ñu mën a dégg. Mhm. nga regle ko si saa si mais xale yi nga xam ne dañuy koola bari na fi kër yoo xam ne xanaa am loo xale yi Sénégal yépp xale yu si bëri dañ leen a jàpp en otage xale yi senegal tey su ma doon wax ni nañ war a génnee benn sarax pour def ko dama naan nañ dem ci xale yi bégal leen. xale dangay gis benn xale bu xam ne nii xoola Aliou. day bëgg dara papaam ak yaayam tëdd ca kër ga jox ko ne ko demal jëndi tàngal xale bu tuuti te xale yow yaa war a ànd ak moom de. Mm-hmm. xale bu tuuti ngay gis si kër amagul sax sept ans gan ñëw fa di ko yónni ay cigarette ak yu kenn xamul koo ko tuxloo waxal xale yi Sénégal dañoo sonn mm-hmm. xale yi senegal dañoo sonn handicapé yi Sénégal dañoo sonn malade yi nekk ci hôpital yi dañoo sonn. prisonniers yi nekk prison dañoo sonn Sénégal ñi ñu am ñu sonn ñi ñu joxul àq moo bari yaa ngi dégg xale bu ndaw bi tàntam jàpp ko yóbbu ko ba pare rey ko ñëwaat taxaw d'accord ni maa ko rey léegi yooyu ban façon jëfin la jëfin maa wa ba pare buñ bu ñu reyee kenn comme niñ ci waxee nii fii ak suba ginnaaw suba ñépp a ciy nopp duñu ñu continuer bu njëkk ba danga daan def benn affaire dañ ciy topp un an woykat yi di ko way waxkat yi di ci wax yéetekat yi di ci yeete imaam yi di ci xutba ku nekk di ci wax mais benn coow la ñuy def dem toog ne mais bu ñu continuer di ci coow di ci wax waaraatekat yi wax xutbakat yi génn imaam yi influenceurs yi bu yàggee mais yooyu mun naa dégager parce que lii tamit ñàkk xam la mhm. dem rey nit ki te yow rey boobu nga ko rey dañ lay yóbbu tëj yi la rek amaa moom moomu rey mi ngi fi bàyyi njabootam njabootam bu demee xam nga dafa bàyyi doomam rey doomu jàmbur léegi dina dugg foo xam ne doomam du ko gis nii deseeg doomam lan la ñuy def doomam est-ce que mun na ko xam waxa rek. bonne question mais nag yàlla mën na ci def sutura. lu daw yaram trop parce que nan ngay tiimee ah. sa mm-hmm. moroomu doomu aadama sax laay wax xale boo xamante ni majooragul amagul bàkkaar nga daal koy rendi ba pare ñëw naan maa tey man su doon. man la wax dëgg yàlla xaw ma sax lan laay wax parce que dafa ma metti ku rey nañ la rey loolu la ñu war a tëral ci mbooy ku rey nañ la rey. mais di wujje ba ci ay doom non ku rey parce que bari na fi. dangay dem benn kër boo xam ne sax dañ naan la da ngay gis benn bàjjen bu sol ah tissu bu rafet bu 100000 kee sol benn ndeysaan tissu mètre 3000 nga wax ne bul laale bul ko nuyu sama doom bàyyi la kër yu ci bari loolu moo ci am mais après dama naan kilifa la parce que kër dafay am kilifa muy góor muy jigéen soo takkee aaw sa xel nekk ci ñaareel nga am ko mun ko. su ñaan wàccee ba ci suba woo woote reño bu mag a mag nga doon kilifa nii ak nii ak nii laa bëgg doxee sama kër man leen na yéen a bokk ndey ak baay bu njëkk ma loolu laa doon gis mais léegi da ngay dugg kër xàmmee doomu aawa yi xàmmee doomu ñaareel yi góor ga ñu yilif ko jaba ja jàpp fii nopp ba nijaay waxuma la lii ah kon baax na ba guddi mais après la kañ ngeen di jur ay doom yu baax mhm. doo comprendre am na loo xam ne dafa salte dafa ñaaw mhm. tout sauf rey man daal wax fa dëgg yàlla maa ngi ñaan yoon képp ku rey nañ la tëddal rey la parce que suñ ko prison du fa am deux ans de après dafay génnaat wax ji commencement la am comme li ci Mori wax wax ji commencement la am. Mm-hmm. mais après dañ koy fàtte. Mm-hmm. su ëllëgee ñu gisaat kañ daal di rayaat faneen kañ ñu rayaat ko faneen ba kañ après kañ la rey di jeex da ngay ragal sax génn. Ah, am na ñoo xam ne suñ juree sëy naa leen dañuy sànni. ñoom jur nañ pare nañ ci des fois da nekk ci benn koñ wala nga jël oto yaay romb a sew a sew xale yoo xam ne lu ñu sa sox lu ñu sa sol tubay da nga naan waa ana ñii di maa ko jur di nañ ci doom da koy contrôler xam fan lay dugg fan lay génn ban heure lay wàcc kan la àndal mais toog ba si yàgg gisoo sa doom nga naan fan la nekk ba pare ki rey tamit dafa yabaate yabaate weesuwul nga jël sa doom wujju mais bu jël ak sa wujju hmm. dama nga rey sa wujju ngeen baal ma ci wax ji moo gën xale lu ci yoonam xale xamul dara dara dara dara dara te barki Seydunaa Muhammad waxuma la prison de mais moom da koy gis am na loo xam ne kenn du ko def xale hmm. parce que yàlla su ko neexoon moment bi ñu koy ay malaaykaam ñu rey mais daf ko neex mu seetaan la hmm. xamoo après lu la yàlla di def lu am na xam dafa sàdd soo juree rek lu bari daf la war a jomm soo juree lu bari waroo ko def jël xale yóbbu ba xale gisul yaay gisul papa gisul dara xoolal métti bi xale bi di daj bi ñu koy rendi metti na kon ndaw si dañ ko war a tëgal daal koy rendi comme ni ñu rendee xale bi wax ji jeex amul kii sama mbokk la amul kii sama jabar la amul kii góor day nekk kilifa ci biir këram su ko mënul na takk benn dañaa takkati jabar man foofu laay tëjee débat bi mm. waaw jigéen njëkk ba amoon na yenn yoo xam ne nii ci xale mm-hmm. bu ñu demee ba jigéen am fit bu toll ni mm-hmm. tëddal doomu wujjam di ko rey ba pare mm-hmm. sa doomu wujj bi ngay rey xanaa la bëri na fi ñu xam ni seen wujj génn na àddina seen doomu wujj moo leen yor. parce que doom géej gi la boo weeree bul xam kuy weri. bilaay dëgg parce que xale xale la rek bu màggee jur rek jur mun ngaa d'accord ni xale bi maa ko jur waaye ku muy jëriñ bu ko xam xale bu nekkee ci kër mën naa jëriñ ku ne ku ne yow mi ko rey mu gis naa fi kër goo xam ne euh, euh, wujjam dafa génn àdduna jëkkër ji génn àddina doomu wujjam moo ko yor. wax naa ko fi maintes fois. dafa yar ñaari doom yi doomam ak doomu wujjam. léegi ñu yar leen bañ nekk mag ñaari xale yi ànd doon jàngi te doomam jàng na ba am bac doomam génn oto fël ko. doomu wujjam la dese moo ko yor nii. en tout cas yi bari na trop. xool déedéet mais xanaa xam loo ñiy defaate lu metti kenn dong lañ ci doon tànn def ko lu metti ñi ci des gis ko mu arrêté Sénégal neex naa rek la de. d'accord mais rek en du daw yaram la. Uh-huh. ndax tiim nit xale bu xamul dara innocent jamono bi nga koy def loolu. Euh, damay yaakaar ni euh, seytaane moo lay kii mais nit ku ànd ak xelam. du du def loolu. ñoo ko def de wujje rek gis nga kenn xam nga nu mu def ak nga kenn nu mu def. ci jigéen nii wan ni la am nañ fit dafa am ko xam ni dafa dem romb ay armel benn néew tëdd fa de muy kippatu néew bi fekk mi ngi ànd ak doomam. doomam ne ko yaay looy looy def nii mun ne ko saa wujja tëdd fii di. laa ilaha illallah yal nañu si yàlla musal. joo ko. am na xam ne wujju jaral na leen nekk laa wax de wujjam moo génn àdduna mu romb bàmmeel ba ca ca armeel ya di ko kippat am na ñoo xam ne seen ko xoola dama ni góor jarul xëccoo. dëgg la jamono jii xam nga lan moo jar a xëccoo. Mm-hmm. nga mais sa góor jar na xëccoo jarul xëccoo boo defee li la war doo xëccoo góor. Mm-hmm. gis góor ku def li la war rek mu bëgg la. yaa ngi dégg mais góor gu ñëw nga fatt ko taraj ay coow lii coow lee damaa leb kii leb fee natt ba lii nii jox ma lii jox ma laa léegi boo nuyoo gis nga ay jéegu muus ñoo am xam nga jéegu muus mhm. muus saa déggoo mu yuuxu intérêt am lay yuuxu <laughs> waaw intérêt boo ñëwee li ñu lay wax mooy jox ma diw mii nangam nangam affaire yooyu mais léegi pour góor ñëw ñu defal ko góor yi bëri nekk armeel ya deewul dañoo deewuñu dañoo daw laaxatuñu. am na ñu ci rey. ba pare am la ba pare da nga leen jox sa dépasse ñu toggal la lu wow. seere mooy bo seere léegi bokk na ci ñuy rey góor. lekk gi ñu lay jox da ngay kii foog nga forcer ko boo ko forcer sa biir bi seere. mais bu njëkk ba jigéen ñi ñu daan def bu ñu toggee tey laax suba ñu toggal la soom bi ginnaaw suba ñu toggal la maafe ginnaaw suba cu di jaxase affaire yi mais léegi dañuy jël ceeb bi dem jënd ko fee ñëw li nga leen war a jox dépasse ñu jënde ko connexion di whatsapp rek la majeure partie nekkatuñu whatsapp <laughs> ah dañuy whatsapp whatsapp ah. waaw la majeure partie nekkatuñu ay sëykat moo tax suñu duggee ñu takka leen wujju dañuy bëgg a def lu metti wala lu bon wax nga ko léegi-léegi nga ne sa tante moo la yar li ci bu njëkk bokkul ak léegi léegi ñu ci bari sëyatuñu soo gisee kenn sëy téeméer yi xam yëpp xamuñu ko sax xamuñu ko ñoom am na ñoo xam ne dañuy posé ne seen jëkkër pour mu génn àdduna ah. seen yoon nekku ci su leen takkalee wujju am na ñoo xam ne dañu leen takkal wujju na ma yàlla jégal am na fi benn cas boo xamante ne nii ndaw si dañ ko takkal wujju mu dagg awra jëkkër ji ak ku taal. am na ku taal jëkkëram am na ku taal jëkkër bi mais su ñu taqalee wujju soo mën a tur neel ah maa ngi jéggalu kat may leen ma baat daal di ñibbi moo ngi ngay sonal sa jëkkër wala ngay jël sa doomu wujju di ko ren jimboor yi am na loo xam ne nag dafa rafetul loolu yoon la ci war a wax. man man de man bu doon. yoon la ci war a wax xam nga lan mooy affaire bi. nañ continuer di ci wax ba pare ndaw si dañ ko waroon a génne am lu ñu ko def won ko ñëpp tubaab bi ba ko waaj a saa ñu ko tëjee mu génn day soppaliku génn tubaab bi mënalu ko dara xam nga nu tubaab bi def woo benn ne ndax tëgg am na ci dëkk bi mu ne waaw mu ne woo leen ma tëgg bi temps boobu tubaab ku mu woo say mbokk dañuy dajaloo wàcceel la kaamil mhm. dafa ne dalay rey tu tëgg bi ñëw di lox tubaab bi ne ko sa pince bi ngay pincé noonu moom laa soxla nga dem jëli ko mu dem jëli ko mu teg waa ji ne ko wekkil ma ci waa ji benn benn bëñ xam nga bëñ bu ñuy wekk te kenn pikiru ko mm. bopp waa ji nii la toll mu ne ko saa bu ñu la tëjatee nga génn ma wekk benn bëñ la mbir ma yam mhm. kuy defaate lu metti dañ lay teg lu metti gis nga ndaw soosu waxuñu ñu def ko kii de mais dañ ko non nañ ko rendi ankay dañ ko rendi déedéet jaru ko non non liñ teg liñ teg ci islam nañ ko teg Sénégal day yomb rek man loolu laa d'accord day yomb xam ku rendi ñu rendi la ku rey ñu rey la déedéet nañ ko gis nga xam nga lan moo gën a mitti ci àdduna mhm. ñu def la lu mitti te doo dee ba keroog ngay wàcc